ginnaaw nuyoo bi ñu sant leen bu baax a baax ànd beeg Aladji Malick bi am na solo lool ànd boobee yan na jëm kanam Yiliman Ndiaye yilimaane attaquant yi tey ji am na taxawaay boo xam ni yenee njikko ko njëkk a xam bu mu taxaw fële ci Angleterre ginnaaw bi ñuy football ak équipe bi la nga xam ne mooy Wigan Athletic nga xam ni match boobee benn bit sëngam moo ca am yilimaane attaquant yi moo ko dabbar ñi bi ñu footballee lu tollu ci juróom-ñetti bit sëngam ko nekk sénégalais gi arrêté wul di def li nga xam ni mooy ay tojaange fële nga xam ni moo nekk Sheffield United nga xam ni foofee daanaka am na fa taxawaay match boobee nag daanaka bu fekkee gana gi gagné ne ko euh, jeex na tàkk bu baax bu baax a baax ci li nga xam ne mooy classement bi ndax euh, Burnley moo jiitu am lu toll ci juróom-ñett fukki poñ ak ñeent kii di Iliman Ndiaye ak bu équipe am am lu toll ci euh, juróom ñaar fukki poñ ak juróom benn ka topp ci ñu noonu euh, lu toll la ñu koy wax am lu toll ci euh, juróom benn fukki poñ ak juróom-ñett xoolee classement bi ñett ñi jiitu bur na la rawee na équipe bi nga xam ne mooy bu Iliman Ndiaye ñetti poñ Iliman topp ci rawee équipe bi jël troisième juróom poñ ñu football lu toll ci juróom ñeen fukki journée séngam maanaam loolu bu ngeen ko ceetoo kon mel na ni maanaam gars yi dolli nañ karawaas ki jël quatrième bi euh, mi del si buro euh, juróom benn fukki poñ la am ak li nga xam ni moo nekk euh, juróom ñaar équipe bu Iliman Ndiaye rawe ko juróom ñeenti poñ kon kookee dàq gi booye mu mu dem seeti leneen waaye mënatu la dab gayndeg sénégalais gi kon gaynde sénégale googu fi mu toll nii daanaka premier ligue léegi mu àgg ca njobaxtal ba moom fi mu toll nii bu góorgóorloo rek gagné ñaar ba ñetti match rek bu ko defee loole day nekk loo xam ni lu mën a nekk la euh, kooku di Edouard Doudou Mendy wala Edou Doudou Mendy dipp gardien Sénégal gis ngeen ko noonu ci image yi image yu am solo tàggatu goo xam ne defaat na ko tey uh, tollantiwaat fi mu toll nii ma ngay rabaj rabaj yi di doxal bu baax a baax ci li nga xam ne mooy ginnaaw camp yi nga xam ne fi mu toll nii foofee lan ko belleegul uh, di xaar nag première titularisation uh, ci eeru lampaar donte Lampard Lampareegul benn match fële ci Angleterre loole ña ngi koy xaar mu nekk événement fële ci Angleterre avec Edu Doudou Mendy